waaye duma def dara du ma perte damay dem ca dërëm ànd ak moom foofu ca Saraba ñu seeti kan Thiat Seck nañu dem te ñëwaat léegi léegi dërëm lu xew Saraba ay ci di am mbégte ak kontaante Aba nuyu naa la sama rakk ji di nuyu Sénégal ak fan si nga xamante ni ah yàgg nañoo béggee Dakar na door pas plus dakaar na door pas plus Aba la macha allah yow laay jàppale li nga sànce fashion na moo tax tey ma ñëw indi la plus bi dërëm yi ay plus maa ngi noonu di wax ne nag Sénégal ñu nekk fi nga xamante ni mooy Saraba night euh, ñu war fa fekk ndaanaan l'enfant série de bon lieu muy Thiat Seck série Fanta Mbaye ak euh, ñaareel xoolu jëkkëram ñu dugg ci biir nag xool Thiat Seck nan lay xoo euh, toogee ak ay fansam ma ànd ak sama Thiat mi Thiat Amin Tëppuy mu aligné te ma sañse bi rek ne ma demal bégal Sénégal yaa ngi xool ci dàll yi fashion yi ak sañse bu fashion bi ma dugg ci biir xool Thiat Seck nan lay toogee ak fanse yi ak koli borom géejawaay fajaa pikin xale caaroy pikin maa ngi dugg ci biir xanaa neex na Ba nuyu naa la. gërëm fay naa la. sa bula ardo day Thiat Seck di doxal yow fan si Thiat Seck dox lan ngay wax Thiat Seck ak fan si Thiat Seck. Thiat yàlla laa koy bàyyi waaw ma fayam kontaan na may fekk. nuyu naa la Cheikh. waaw Thiat Seck sunu càmmañ la sunu góor la sunu lépp la ñun ñoo ko bëgg sunu xool ñu bokk benn géeja ñu bokk géejawaay nag fu ma woote dañ koy wuy ji parce que yonent bi fii ba bu woote woon fii

yow faale woo kenn yow. nee naa la daanaka. waaw mais dërëm na mën naa la ci doon ne. tey Thiat Seck di tëgg nga ñëw ak sa rouge awa xale yaa ngi de waaw Dakar na door pas plus bi noo ko gisee. non na door pas ci kanam Dakar dafa wuyu juróom Dakar na du mu sa fay nuy naa la. waa neex rek. waa rakku caat di doxal. nan nga gisee soir. waaw maa lay bëgg bu waaw tey moom dañoo ñëw pour caat. suñu doomu rek suñu moo fi ne. moo yëngal moo yëngal. eh yéen El Hadj Keita de eh El Hadj dafa sant de waaw waaw. stress kii moo la gën a dee. waaw eh, ci sama xarit la Papa Ndiaye no stress sa ngi nii. sama xarit la dama bëgg nga jotal ma Aba. xam nga moom sama emprunté la woon après jëlee ko Amady Badiane jëlee yóbbu ko yow xam nga ne no stress maa ko moom dinaa la booleeg Bouba Ndour nag man lañ waroon jël. man jël nga sàcc sama no stress yow dama la ko baale dama lay bàyyi ak mu am nu mu def ak yow rek Eh, El Hadj Keita Boy da ngaa sañse e eh, Thiat Seck maa ngi ñëwaat foofu léegi léegi ci Saraba du ma yàgg fenn wax naa leen ko.